internationale. abonné leen ci youtube ngir saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. Seneinfo. asalaamaaleykum mbokk internaute yi ñuy bàyyi xel ci seen bu am ak suñu différentes yi ñu leen di nuyu di leen jaajëfal baax ci tey nag ñu leen di dalal seen émission sociétale penc mi am comme invité nag euh, ku ñuy woowee Lamine euh, Yafa moom chercheur la ma am gëstukat euh, di docteur en chimie fële ca université Cheikh Anta Diop Dakar ak moom ñu fas yéene waxtaanee mbirum gëstu boobu tolluwaayam ak yooyu wante itam actualité politique moom militant la bu Pastef fële ca Grand Yoff balaa may sori rek ma bàyyi ko mu nuyuante ak mbokku internet. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk internet yi ñu seetaan fii ci seen info eh, di remercier eh, sama waa ju baax bi eh, ma ne fenn ci invitation bi di ko naan vraiment nous sommes disponibles ci voilà question yi ñu war a répondre bi posé fii. xam naa la sama laaj bu njëkk rek ci wàllum recherche maanaam gëstu. dañuy waxtaanee xanaa tey rek boo doon wax peut être defal benn définition ñu euh, gis mooy lan. waaw gëstu bu wax euh, ci wàllu kàmm euh, mooy ñoo xam ni dañuy nekk ay enseignants wala nekk ay science bon xëy wàllu science daal laa nekk man ñoo xam ne dañuy gëstu di li ñuy gëstu muy wër ci wàllu xam-xam di gëstu ci wàllu xam-xam am na xam-xam yi fi nekk yoo xam ni. nit ñi teg nañ ko bii nii la mais am na yoo xam ni ba léegi leeraay bi des na mais gëstukat gëstu gëstu di gëstu ba ah lii la ñuy teg nii loo xam ni leerul lëngal na xel yi lii la lii la fi wala itam mu am problème ci société bi gëstukat yi ñooy apporter solution. maintenant su ma tey par exemple joxe benn exemple bu ndaw ci wàllum corona bi nga corona bi ñu soog a xëy ñu ne amul garab gëstukat yi gëstu. mooy bon utal ko ay mooy utal ko loo xam ne lii du mën na ko mën na ko gëstu moo tax ñu mën a def ay defar ay ay ay ay parole ay ay solution gëstu moom la tax ñu defar ay garab ay solution donc ñun nag si wàllu chimie bi la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy féetoo waaw ci wàllu chimie bi la ñuy féetoo à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar alors lu chimie mooy li ñu mën a li ñu mën a définir chimie bi lan parce que chimie dafa nekk loo xam ne boo ko waxee société bi duñu xaw a comprendre lu bëri waaw lu chimique ni lan la mooy que lépp loo xam ni ci nature bi la jógee mais naka lay transformé par exemple boo jëlee ay meññeent par exemple ci ci wàllu wolof wax meññeent xam nga lépp loo gis ci garab ci lekk meññeent la léegi meññeent boobu lan la si si si loolu day su ci loolu noonu garab boobu wala lekk boobu meññeent boobu lan la donc si ñu ci loolu lay gëstu wala moo tax ma ne c'est personnes tey bu ñu doon wax ci tolluwaayu boobu surtout ci domaine bi nga nekk ci fii ci Sénégal nan la fi taxawee. loolu dinaa ci sawar a tontu parce que comme que ñoom loolu lañ xam ci loolu gëstu alors bu ñu wax recherche chimique yaakaar naa Sénégal est très en retard Sénégal moo ci gaaw lool lool lool ci wàllum recherche chimique. waaw li waral loolu mooy premièrement d'abord mooy que borom xam-xam yaa ngi fi bopp yaa ngi fi yoo xam ne mën nañ teg ci taabu dara wante ci war nga chimie dafa nekk benn branche boo ay moyens moyens yooyu nag chimiste yi mënuñu ko jox seen bopp loolu état rek moo leen ko jox parce que boo jëlee benn appareil de chimie rek boo xam ne chimiste yi soxla nañ ko mën na jàpp ay millions loolu xam nga mënu jóge seen poche loolu état moo ko mën ko def te état lu mu def ci chimie. ci recherche fondamentale en a ñoo xam ne ñu wax di yàlla rek ndax ni état bi deful sax parce que daal di ci wàllu recherche boobu parce que man ci laa nekk ci laa dégg donc ñun lu tuuti li ñuy def ci ay analyse ay ay ay analyse suñu recherche dañ koy fay wala ñu koy cotiser pour ko defal na ni état bi deful ci ko mën a waxee. tey peut-être su fekkoon ne état bi am na war a lu mu war a def peut-être lu leen a jàppale ci ay jumtuwaay daal la am lu ñu war a jàppale ay jumtuwaay bëri na su fekkee man sama domaine par exemple ci chimie war nañ mën a soxla ay appareil spectromètre ay spectromètre carte UV visible électrochimie wala ay appareil diffraction des rayons X amuñu ko fii ci ak yeneen appareil yoo xam ni soxla nañ lu mel ni RMN lu mel ni APG ainsi de suite yooyu yëpp ay appareil parce que yooyu moo lay permettre yooyu mooy analyse préliminaire yoo xam ni moo lay permettre nga xam yow li nga li ngay gis la nga am d'abord boo paree foofu nga soog a mën a dem nga ne li ma am nii lan la mën a defar société lan la mën a amal njëriñ mais foo nga xam ne li nga li nga defar nii lan la doon te yooyu moo lay permettre nga am a a xol applicabilité wu sa li nga jot jot nga bokk ci li nga jot a am lan la mën a amal njëriñ société société bi mm-hmm. mooy défi bi instant te loolu bi ñu da ñu defal loolu léegi la fay léegi ñu defal loolu gratuitement donc loolu mën nañu vraiment état vraiment mën naa wax def ci dara waaw. sànq euh, junj junj nga ne Sénégal dellu na ci gannaaw loolu te bi ko doon xayma peut-être. def comparaison ak ay réew Afrique xam naa réew euh, bitim réew moom xalaatuma ko sax mais tey comparaison ak euh, ay ban position ngay teg Sénégal. waaw mais xam nga chaque année dafay am par euh, ay classement classement Shanghai ay classement des meilleures universités du monde wala de l' Afrique mais da ngay xool même ak Sénégal bokku ci même meilleure université en Afrique Sénégal du ci bokk. léeg-léeg mu bokk ci mais dafay lu ci benn place boo xam bu sori sori la léeg-léeg ci dix premiers yi du ci bokk sax yàgg na loolu Sénégal bokk ci xam nga loolu ça veut dire que loolu te loolu lu lay mooy loolu recherche bokk na ci luy tax nga mën a bokk ci jëm soit ma xamul ndax yàlla ko luy war a tax nga mën a bokk ci classement boobu recherche ci la bokk. il faut nga am ay moyens les moyens de faire c'est parce que lu la dépendement bi ci yow c'est recherche la ñuy produire. te chose lu ñuy produire il faut ñu am moyen pour mën a produire daal léegi comme amuñu moyen bu ñuy produire lu conséquent loo xam dafay am impact bu boobaa bu ñu def classement yow wala bu ñu doon def si boo xoolee à chaque fois classement bu génnee Sénégal bu ci bokk wala bu ci bokk itam vraiment dina ko ci biir place boo xam ne vraiment Sénégal mérite wu ko waaw parce que ci wàllu recherche sax ñun léegi dañuy jëflante ak yeneen université boo demee ci yeneen université da ngay ci yeneen réew da Euh, même matériel élémentaire yi am nañ ci lu bëri. réew yoo ma Sénégal donc yooyu gis nañ ñoom matériel yu bëri ko mais ñun sax ñun sax suñu gouvernement yi xalaatuñu ma gën a jaaxal mooy léegi ba léegi ay ministres yoo xam ne ci jógee par exemple ministre bu jógee nii eh, mooy comme euh, ah, la mais dafa mel ni dafa nekk ministre fàtte si xanaa xamu ni dara ku ci université surtout faculté de sciences et techniques euh, de l'université de Dakar ah, ñu ngi xalaat peut-être que bi moo xam ne ci faculté boobu la jógee ministre bi ci faculté boobu la jógee xëy na peut mu gëstu mu xam parce que moom xam nga dafa xam dafa xel xam nga dafa nekk lu ma wax ci chimie rek xam nga loolu moo nekk ci physique car donc ça veut dire que moom wax dëgg fa yàlla état bi mu ci def euh, néew na lool waaw yéen nag am yéen a ngi def peut être devant devant Chiba yéen en tant que comme association ngeen def wala mu xaw ay demee noonu pour mu ne combat boobu. waaw xam nga ñun lu ñu war a def peut être que suñu kilifa yi ko war a def lu mel ni doyen wala recteur te ñoom itam dañoo léegi ñu bind demande bind lu ñu soxla mais xam nga loolu bu ñu ko defee itam ci ministre ci loxo ministre bi lay tëb ministre bi moo ko mën a defar wala ministre bi ñoo nag ñu ne recherche bi lii fii laa bëgg ngeen àgg lan ngeen soxla. par exemple boo demee en boo demee en France par exemple seen labo yi ci sous-tutelle du ministère de la défense la nekk gis labo par ministère de la défense boo koy téye mu am sécurité boo bokkulee foofu doo sa doo fa dugg mais yow da ngay dem université si ànd jox ay muus ñoo dafa doon te alors boo demee yow mi sax boo nekkee africain boo fa demee dem ay locales de yow moo fa dugg tant que Pape Ababacar au ministère de la défense moom sous tutelle du ministère de la défense lay nekk. la défense lañ toll. ndax solo parce que moo lay bi nga mën a état moom loolu la Cheikh Anta recherche mënuñu dem fenn te science moo ñu si moo la ko mën indi ci nga am autonomie en science. ndax tey boole jafe-jafe yi ñu fi def yëpp est-ce que peut-être am na ay résultats yoo xam ne peut-être jot ngeen ko awal mm, ci recherche boobu ba tax sax tey bu ñu la doon jàppale itam dinañ sawar si jàppale leen ay résultats waaye yoo xam ne peut-être recherche jot naa am ci recherche Sénégal ak yooyu. waaw xam nga ñun euh, lu ñuy liggéey par exemple souvent comme nga expliqué mooy que ñun dañuy def par exemple ay composé nga par exemple boo jëlee même par exemple garab. bàkkaar bi nga génn composé la ñun ñaa koy synthétiser sinistre ñoo koy synthétiser defar ñu ko defaree ñu xool ban njëriñ la mën am société xam nga yaa ngi dégg c'est-à-dire que du koy synthétiser mu bees boo ko synthétiser nga am ko ko pare nga xool bii nag boo ko defee ba xam lii la nga mën a xool ban jëfandikoo nga mën a jëfandikoo nga uti ay ay ay propriété loolu dañuy wax ay propriété bi di se composé loolu nag boo ko boole. ñun ci phase première phase bi lañ toll c'est-à-dire ñun sax ci beneen phase bi ñun trois phase première bi lañ am problème mooy que da ngay defar sa yëf bu pare yow ñu moo xam lan la doon te obligé nga daw ci gannaaw ñoo leen ko mën a defar ba nga xam lan la. waaw seen liggéey day mën nga fenn. dafa am yi lay voilà damay boo jox exemple tey par exemple dangay dem université par ne ñu def toog ay at mun ñu am ay moyens pour mun a caractériser li ñu am noonu pour xam lan la lan la pour xam lan la da ngay gis koo xam dina def trois ans quatre ans te lu mu jot defar mënu ko caractériser mënu ko fexe ba xam lan la lan la doon xam nga loolu foo nga xam d' abord loolu pour nga mën a dem ci beneen étape bi mais boo tolloo ci bii moom musiba la te ñun ñu bëgg daal tubaab moom musiba la moom ñu lay dal parce que ñun ci phase première bi musiba la loolu daal il faut kon daal xamul ne ci jege am solo pour euh, ngeen mën a li nga xam ne dépassé état su ma la bëggee waa wax dëgg su ma la mënee wax dëgg mooy que ñun ñoo ngi si état boo xam ne xamul valeur recherche moom boo xam ne xamul valeur recherche tàllu recherche xamul luy recherche mu ne ma su ma ko su ma ko wax te loolu aussi parce que ñun dañuy jëflante ak suñu naan am ay léegi wala ñu defal fi loo xam ne mu àgg foofu ñu gis ñu gis ñu lii war na mën am solo mais xam nga bu fekkee ne yow loolu mënoo sa te mu xam ne lii lu mën la moom bu la ko waxee da la ci cest à que problème mu li muy am foofu sa sa li nga yor du la am moo koy exploité moo tax gis njëriñ ci li ñuy def. gis njëriñ mais malheureusement du mën a wéy parce que ñun mun am ñu jumtuwaay pour mën a def te ñoo itam ñu koy def ñoom seen intérêt lañu seen intérêt lañu la lañ ci xool loolu jafe-jafe. waaw peut-être euh, ñu ne leen dégg tey ñu ne dégg naa ci jéem ay euh, saafara. Ah, yaakaar naa ko parce que euh, nee naa la su ma waxee sax ci recherche bi recherche bi lu fa xew kenn xamul lu mu lu fa xew ci problème ëpp na ëpp na sax toog di ko wax non seulement recherche mais a aussi dafa am ay pléthore de docteurs yoo xam ne dañoo am seen pays seen jaasa ko léegi kenn jiw kenn fàtte am a tourner pour leen a recruter da ngay xool par exemple étudiant dina ay bëri ci université mm-hmm. mais étudiants yi sax dañoo am jafe-jafe sax pour mën a def la mu am seen cours ndax léegi enseignant am doyul te pourtant. am na ay docteurs yu fees dal yu fi nekk yoo xam ne mën nañu état mën nañu jël pour ñu mën a def ñu assuré cours yëpp suivre étudiants yi mais loolu yëpp ay jafe-jafe yoo xam ne bu ko boolee eh, yéeme daal pour ñu toog fii di ko di ko wax. waaw waaw waaw